on en vient d'ailleurs au cas Karim Wade euh, le cas hmm. Karim Wade ban impact la am euh, ci li xew kaawu Karim Wade moo sooke wax ji maanaam fa la wax ji jóge ba waa PDS dem demandé ñu def commission d'enquête parlementaire noonu PDS dugal projet de loi assemblée nationale pour ñu reporter élection maanaam lépp ci cas boobu la jóge waaw boobu nag man li ma la ci waxoon moom laa jàpp ba léegi dama jàpp ni génne Karim ci élection yi injustice la ndax nationalité française li la koy ñàkkloo mooy déclaration te Karim def na déclaration le 26 octobre 2023 ci consulat France bi nga xam ni moo nekk Doha ba consul bi lui a acte de cette déclaration mais kon kooku kooku kooku doo ñëw kooku doo ñëw non kooku du ñëw kooku doo ñëw nationalité française déedéet déedéet déclaration déclaration la majorité selon le non déclaration déclaration mooy act bi nga xam ni boo ko defee mooy renoncer nga yow ci sa nationalité française loolu mooy fait bi décret bi dafay constater rek moo koy acté. mais li lay non de de de li lay ñàkkloo yëf yi mooy déclaration bi nga def waaw léegi nag nga mën a comprendre koo xam ne au moins def na déclaration nga ne du bokk keneen koo xam ni kaam c'est américain dafa am nationalité Roosevelt di nii nga ne dafay bokk. xam nga day bu doon Sénégal bu fekkoon ni dëkk la boo xam ne nit ñi dañoo ñeme dëgg wala ñuy wax dëgg bis boo génnee Karim Wade dugal Wade Roosevelt di nii. ñu dem ba gis ni Rose nii warul bokk rek loolu wane na ni processus bi yëpp c'est vicieux bu fekkee ne dëgg rek la ñuy wax te ànduñu ci parparloo président Macky Sall nañu wax de président Macky Sall dafa mel ni ci interview hmm. semaine dernière am bi dafa sous-entendre ne am na yeneen cas et que ñu bañ a am na yeneen am je te confirme je te confirme que am na ñeneen candidat yoo xam ne ñu ngi ci list bi te am nañ des nationalités étrangères ça je te le confirme non mënuma ko wax mais je confirme te bu émission bi jeexee boo ma woowee téléphone danaa ne la diw nationalité canadienne la am diw nationalité française la am diw nationalité française la am